sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddiini wa radiyallahu an seyxina ahmadul qadim wa ala qudwatina al azim maam cheikh ibrahima fall babul muridin barkeb cheikh abdul karim Mbakke faddilu ñu ngi sant yàlla mu baax di ko joyal moom sunu boroom mbooleem xeeti cant yi ngir moo ko yeyoo di julli ci sayyiduna muhammad sangub sang yi waaye noo ngi feddaliwaat sunu kóoluteef ci Ahmadou Bamba ak maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi balu xaq bokk yi di leen baal di ñaan yàlla sa borom boole jéggal ñu ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te mu ànd ak di ko ñaanal sëriñ Baraka di ko ñaanal sëriñ Cheikh Jëmb faal waaye ak mbooleem kuy sol sa dàll te lislaam tax laa jóg ñi ngi nuyu di ziyaara mbooleem mbooloo mi mbooleem kilifa yi nga xam ni ñoo ngi ci jotaay bi ñoo ngi leen nuyu di jox nuyoo bi sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke moom Cheikh Abdul Fatah moom Cheikh Mouhamadou Fadal mii nga xam ni moo woote bis bi di ci fàttaliku sëriñ Fallu mbakke ànd ko leem bokkam yi ak bokki taalibe yi di ñaan yàlla ñu yàgg a taxawee bis bi fekke ko at yu bari gannaaw tey te bu ci ñëw dajeeg ngërëmul Cheikh Ahmadou Bamba xam naa ni ko sëñ Mbàkke Touré waxe du doon lu mën a yàgg ndax waxtu wi sori na ba noppi waaye ki ñuy fàttaliku fàttaliku ko mën naa defar mbooleem jikko yu waa àdduna bi mooy Alaaji Fallu Mbàkke suñu ko doon misaal dañuy wax ni doomi borom Touba la doy na ci sañ Fallou Mbakke doomi borom tuuba doy na daraja bi mu doonee doomi borom Touba ba noppi bokk ak Cheikh Ahmadou Bamba Mbusoo bi doon gëm sëriñ bi yaakaar ko ak dundam moom sëñ doon loo xam ni dund gu fees dell ak njariñ la dund gu barkeel la mu feeñ ci sëriñ bi waaye damay faral di wax ci sumay waxtaan yu bari ni sëñ Fallou Mbakke bi way juróom bi ne man la yàlla donnuloo alquran te yàlla waxoon maay tànn ku ma neex loo ko ko ma summa awrasna alkitaba allazina astafayna min ibadina sëñ Tuubaa ne awrasani rabbi kitaballahu fadlan wala ilaha illa allahu awrasani lahu kitaballahi wa jumlatil kutubi bi hisbillahi loolu sëñ Fallu bokk na ci li ko dëggal ndax moom rek moom borom Tuubaa moo fi am jenn doom xam ni boo ko laajee kañ nga gane jamono mu ni boo jàngee alquran gis bi boo ko laajee fu sa gane jamono siiwe Mbàkke mu ni boo jàngee alquran gis bi boo ko laajee ban bis la mu ni boo jàngee alxuraan gis ko boo ko laajee foo dëkk mu ni boo jàngee alxuraan gis ko boo ko laajee noo tudd mu ni boo jàngee alxuraan gis ko boo ko laajee looy liggéey mu ni boo jàngee alxuraan gis ko alaaji Fallu Mbàkke bàyyi soxna ma yeeg mbeen boo ko ne kañ nga gane jamono mu ni jàngal suratu Israa yi mbaa nga jàng suratu Najm mi yàlla nettalil boppam subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjidi alxaraami ila almasjidi alaqsa alladi barakna xawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir yàlla nettali ca naj mi wa huwa bil ufuqil aala summa danna fatadalla fa kaana qaaba qawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kazaba alfuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara wa laqad raahu nazlatan uxra inda sidratil muntaha foofee la jibril ak alburaax mënoon a yem moo tax sëriñ tubaa wax ni fa baata yasri wa jibrilu saramaahu fawqal buraaxi ilaa axsan nihayaati wax na fële ca mimi huwa alkalimu allazi asra alilahu bihi ila samawati laylan jaliyan sulama qad baata yasri wa jibrilu saramaahu fawqal buraaxi lima anil waran bahama wax fële ni az faqra min hina asra bil jismi jahra bil aftirai akrim bi rabbi asra bihi bi laylan li qurbi ma al barai qad bata yasri min ba'di tuhri mudima bisri fil anbiya'i surral amini ma al amini fawqa lawini lil atfiyai fa mun minha la amri ya isra'u ilahu bihi bi ruhi wal jismi laylan li samawati salli ala sari sama fawqa al buraqi li sama muhammadin wa karima bi hizbi wa sallimi qad bata yukhriqu ittibah kañ la ñibbi si sëñ Bamba moom rasulullah mu ne avant fajar fa aaba fii layli xablal fajri yaalamu maa xat kaana fii sarin za nafiyin aw isbaati xat aaba layla xat sàbba nayla xat faaqa zayla min zil baqaa'i sumali daarihin sanaa sëñ Fallou sa gën a jamono siiwee mu ni jàngal alquran wallahu yadoo ila daari salaam ban bis la mu ni jàngal alquran yaa ayyuha allazina amanu iza nudiya li salaati min yawmil jumaa fasaw ila zikrillahi wa zarul bayan foo dëkk alladina amanu wa amilu salihati tuuba lahum wa husnul maab noo tudd wa annal fadla bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamina sëñ fallu waykat bi ne ci ama wasasin la fa tuuba am nañu naa daru salaam la booba ci mamaat la mbër mi génn daaru sañ si Tuuba Mbàkke ñëpp a waaru ajjuma tey kazu rajab takku jundul ilaahi dar ko mbër may bàkku bisu keroog daam dani bu ko kenn nampal bi mu ñëwee daawoor feek jant bi so ko jox toqantal bi su keroog wax na ni yi ñëw na fi ngir juddoom bi doonallaahi inni ya abdullahi moom la isa waxoon di leen jureel garaw na bu taabur ba defoon ba isa mën a wax ci biir muur moo def keroog sëriñ fallu mën a woor amul lor bi ka taway naa maa lahu nastaaku salla alayka akramul xallaaxu ba bis ba def see la ko saamadu bamba tudd mamadu fadulu cheikh ibra fall ni liir bi dina toog bay atte alaaji fallu di wax ni baat bi Cheikh Ibra waxoon ni liir bi dina toog bay atte mënu la weesu Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim njibbi àjjana sëñ lu ëf rajo bi wax ni jumaa ji xeeru ci njëkk man la woon Mouhamadou Fadilu ci ndigalu Cheikh Moustapha Mbacké sama mag ju baax ja wi ci mu jumaa koy teg di ko jiite ba mu soxma sama dura ngi sama loxo ma téye ci sëñ Fallou lañ ko mos a déggee bàyyi soxna may ak benn mu doonoon ko ku teel a jox boppam borom Touba la ku teel a gëm borom Tuubaa li kéemaan yiy bare ak li daraje yi bëri yëpp bi fi Cheikh Moustapha jógee la ko door feeñal waaye jikko ju rafet ci sëñ Fallu Mbàkke la yam moo Cheikh Moustapha seen diggante soriwul waaye lu ko waay mësa a indil mu ne yóbbulal sëñ Cheikh Mouhamadou Moustapha sama mag ju baax ja moom alaaj Fallu Mbàkke daan feeñal kéemaan waaye di jàngale àdduna moom sëñ Fallu di jàngale mbaax jërëjëf Mbacke yaram di jàngale mbaax sëñ Fallou mas naa toog ci jotaay am ko wax ni man de damay jaayi reen te murid yi mel ni Saliou Samb suñu toogee ku mel ni sëñ Fallou nga ñëw wax ni damay jaayi reen man nañoo mel ni ñu la xaw a jëppi sax ñu mel ni ku déggul waa ji ba waa ji mel ni ku bëgg a dem sëñ Fallou laajal boppam ana ki doon jaay reen yi ñu daw wooyi ko mu ñëw mu ni ko takk ñaata la mu wax ko ko mu ni ko wàññi ko mu wàññi ko mu fay ko lépp waa ji dem sëñ Fallu waxtaan ba jóg jot ci jàngale addunaam ak jàngale mbaaxam mu ne ah, man de damay jaay reen ñu ni ko mbàkke loo koy jaayee mu triplé li ko waa ji jaay woon gaa ñi jënd ko ba bu bëggoon a jaay fi ko teg sax ñu jëndaale ko mu ba bañ raj raj loo ba dal mu ne waaw ah, ndaxam yaakaar képp a tax ngeen jënd ko ci man de ñu ni ko waaw Mbàkke mu ne moom yaakaar képp a taxoon mu taxaw fii wax ni damay jaay reen bàyyi leen tas yaakaar jullit du tas yaakaar waaw bu ñu def journée culturel ku mel ni sëñ Fallou xeeti jikko yi mu daan dundee war nañ koo génne nit ñi xam ko am na ku ko mas wax Mbàkke da ngaa fonk Senghor te moom mu bokk ci ahlul kitaab ku ne xam ne Senghor chrétien la mu ne ko da fonk Senghor lool te mu ci ahlul kitaab sëñ Fallou danir lu ko mel ni ku déggul kiy wax bàyyi ko ba tàggoo war a jot moom mi ko waxoon baat boobu mu ni ko diw mu ni ko Mbàkke mu ni ko boo romboon fii aw kayit mbind nekk ci ñu ni maa ko bind ana noo koy def mu ni ko mbàkke xanaa fonk ko mu ni ko sengoor yàlla ko bind sëñ Fallu slogan moom mooy doomu aadama yàllaa ko teral wala xadd karam naa ba ni aadama yi borom ji la jëloon moom def ko slogan parce que yàlla doomu adama boo janool jàpp ni da nga koo war a toroxal xamal ni opposé nga sa borom sa war a xadd karam naa ba nii aadama la wax kon ku bëgg a toroxal nit rek opposé nga yàlla ak noo ko jéem a toroxalee te yàlla ku ko opposé boo ëllëgee bu ko neexee mu duma la moo tax bi yàlla waxee wala xad karam naa ba bani aadam sëñ Fallou Mbacké daal di jël slogan bi moom muy teral doomu aadama dinaay faral di wax ni nag sëñ Fallou engagé ni boroomam faj aajooy jaam ñi laay liggéey bi mu nee yàlla faj aajooy jaam ñi laay liggéey te yàlla bëgg doomu aadama yàlla jël li faj aajooy jaam ñi jox ko mooy kun fa yakun waaye da koy xool ba mu yàgg mu ni ko mbakke yàlla na nga am jàmm sëñ Fallou ni ko dinaa ko am waa ji ni tekk mu ne ko laaj ma lu tax ma ne la dinaa ko am mu ne ko lu tax mbàkke nga wax ko mu ne ko damaa yéene ñëpp jàmm te jàmm ku ko yéene ñëpp du tax ñëpp am ko waaye yow mi ko yéene ñëpp di ko am kon nañu yéene gaa ñi jàmm ñu ngi nuyu njabootug sëñ Aliou Diouf Lambaye googu di tàbbi ci mbooloo mi nga xam ni Cheikh Abdoul Khadir Mbacke mii woote bis bii yàlla ci ñoom la ko boole te Cheikh Aliou Diouf doon kenn ci ñu toppoon boroom Touba toppin wu rafet dinaay faral di wax ni la daloon rasulullahi ca ba muy tàmbali woote ba dal ku mel ni Bilal ibnu Rabah ak Amar ibnu Yaasir ak ñañu ko àndaloon loola bi yoonu murid di tàmbali sëñ Aliou Diouf ak sëñ Mbaye Ndiaye Cargaan ak sëriñ Mor Maane ca la sëñ Touba dippee rasulullahi ci wet googa bi lislaam tàmbalee ku ne xam na ni waa Makka taxaw nanu ngir képp koo xam ni danga amul doole mbaa nga ne cig moomeel soo àndeek njool Makka ñu dal sa kaw duma la ba keroog nga naan bàyyi naa ko te Serigne Touba daa doon Seyduna Muhammad kon bu wootee lu mel nii mu woote ci biir lislaam bi wax ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatul xarraa wa inni ahmadu bu yoon wi tàmbalee faw la daloon rasul lu mel noonu na ko gaar waaye moo ngi ko gaaree ci signal li Diouf ndax nijaayam joo xam ni ab teeñ la woon ci bawal yilif réew ma te booba baadoola du xool buur moo leen wax ni da ngeen di bàyyi sëñ tuuba mbaama di leen ba ngeen jeex mu ànd ak mbokkam ma sëñ Njaay Cergaan ak sëriñ Moor Mbaane Maane Mbay ma woon yàlla dogal teñ tanoor xupp leen xupp ñu gant muy dóori kënu ak di génne deret dégg nga Baye Moussa nam ko waxee muy bocci ay gobar di feeñal damu di boole dóor ak yeew amul far jàmm te naa baleen Cheikh Bamba maa ma rendi murid yëpp ma nga naan ba mandi وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما sëriñ bi dafa na ñëpp toog teewlu te teewlu xasaayid yi xasaayid yi sëriñ Tuubaa ko bind dafa laaj teewlu ak déglu ak barkeelu sëñ Mor bismillah هذه مسالك الجنان في خدمة مطهر الجنان من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدم بما اصطفى من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدم بما اصطفى أخدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى أقدموا إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من ظن أنه يكون أبدا مرضيا بما كخدمتي بدا fa garrahu dalaalu wal idlaalu yanqaadu lii minhu bil halaalu madaatu qablu lanaa lii barwali madan wana an mislihi kulli waliya la dama yomba ma uyubi wa kafa zanba madatu inda unasi galwa madan kafani al-ida wal balwa minni نعمة خد لا سمت روضتها إلى الخيام حسمت رضي سبت جيلاني علي رضوان الذي أعلاني رضي عني سبت أبو الحسن عليه رضوان يخلد الحسن رضي عني سبته تجاري عليه رضوان مبيد الجاني رضي عني خلفاء أربعة أسرد المقربين المطبعة من لم يكن عني يردى فالكريم ردي عني ردا ليس يريم جزى الله المصطفى خير جزاء وعدا النجسام صلاة من كرمه يلقاني على الذي دون المراء الخاني لا عبد الله خادم الرسول دنيا وأخرى عصمة وخير رسول laa sa abdullahi xaadimu rasul dunya wa uxra ismatan wa xayra sol hajat xasaayidi xulubal anbiyaa maa almalaikata inda rabbiyaa ida katabtu tasar وسبحت ملائك الطباخ توسل أقلامي لله عابدا بلا خلوة والله أبخى كما أخنام lor dem na xéewal yi baawaan dootu jeex abadan ku sopp Sëriñ Fallu xéewal war la lor dëddu la war dem na xeewal yi dootu jeex abadan ku sopp sëriñ Fallu xeewal war la lor de du la dawi laa Seex Fallu fi abadin xayri laa man a daa ya xam nanu la Mbakke moom Cheikh Mamadou Fadal borom bés bi noo ngi ñaan suñu borom yàggal ko fi ak raqam yëpp mu yàgg fi lool te ànd ak ab lañ ko seede woon daaw daa yokku rek te gënuñu ko ko xam mooy ci suñu wasila bi Cheikh Jili Abdou Fatah te xam naa ne sëriñ Alaaj Njaay dana ci jaar Cheikh Ibra Cuun dana ci jaar ngir jotaay bu bañ a yàgg ñu bañ a yàggal lool waaye du tere liggéey bu ni mel ñu bootu ci Cheikh Jili abdu Fatah ci ginnaawam war nañoo xam ne maanaam ay jàmbar yu mu tàggat ñoo dox ànd ak moom ba lii daayira yu bari la di fédération saadiqina wa saadiqaati sëñ bi lëkkale ay daayiraam yu bari yoo xam ne dañ fay ne ñu ci bari nag teew fi ma bëgg cee tudd ñenn ñoo xamante ne teew si nañu tey ci bés bi ànd ak ñun ci liggéey bi ndax am na ñoo xamante ne ñoo ngi ba bitim réew seeni ndaw dikk na waaye ñii fi nga xam ne ñoo fi teew mu di daayira Parcelles Assainies yi nga xam ne ca fa mu ko tàmbalee angle sëñ Fallou bii nga xam ne moom lay màggal tey tuddee saa yu jotee ñu def anniversaire bi daayira yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoo di Parcelles Assainies ñoom ñëpp teew nañu ànd koog waa Parcelles Assainies su ma nee làmbaay it xam nañu ne ay daayira bàyyi na ko fa bàyyeekoo na fa ndax euh, jëmm ju tedd ji nga xam ne bii moom la tuddee bés bi nga xamante ne mooy bésu bi muy maam Alioune Diouf làmbaay làmbaay gi yëpp teew nañu ñëpp teew nañu ànd ko ak ñun. waaye ñu waxit tudd it daayira yi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci région yi rek ngir gàttal dakaar gii mboolem bu fi dayre sëñ bi sëñ bi taxaw daayiraam yëpp mu tuddee leen soppee soppe Cheikh Mamadou Fadal daayira yëpp ci ndakaaru teew nañu tëngéej lii nga xamante ne moo di jaxaay fii di Pikine département trois départements yi nekk ci Dakar yëpp teew nañ fi ñetti mbaar banlieue bi ñëpp teew nañu waaye daayira yi nga xam ne ñoo nga Thiès bàyyeekoo nañu Cees ñoom it ñëw teew ci bés bi Bambey la ko dalee ci Bambey taax Bambey séeréer ba Njaajaan daayira yooyu yëpp ñëw nañu teew ci fi nga xam ne moo di Mbuur it daayira yi fa sosoo ñëw nañu teew daayira kawlak ñoom it ñëw nañu teew ci bés bi li nga xamante ne moo di maanaam fii ba Kumpentum sëñ bi am na fa ay daayira ñoom ñëpp maase nañ ñëw teew ndindi nga xam ne moo di ndinduk Cheikh Mamadou faadal dëkk bu tedd boobu sëñ bi am na fa benn section ci fédération bi nga xam ne lu tollu juróom-ñetti daayira bàyyeekoo nañ fa ñëw teew kon mën naa ne Sénégal gi yëpp ay daayira jóge nañ fa ñëw teew ndax sëñ bi dafa yaatal liggéey bi rawatina si jeunesse bi la ko gën a accès ak ci ñi nga xam ne ñoo di soxna yi nu mu koy waxee saa ne rek liggéeykat la boo xamante ne bii acteur de développement la éducateur la boo xamante ne bii mi ngi liggéey lu mag a mag si ñun ñi yëg nañ ko ñun ñi nga xam ne si ñun la koy def kon boog dellu santaat ko te di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér te di ko sàkku ci kilifaam yi it ñu dolli koo ñaanal mu yàgg suñu kanam yàgg ñoo jiite ndax ci yoon bu baax bi rek lañu ñu teg waaye du ñàkk it ñu sant bërëb bii nga xam ne moom lañ koy defee kii nga xam ne moo di monsieur Cheikh Ndiaye bokk ca Lambaay di directeur général fii nga xam ne moo di CICES amul benn guddi wala benn bëccëg boo xam ne ménagé na ko ngir jotaay bi mel nii nga xam ne moom la mel mbooleem puy saal te xam nañu ne bu baax ne directeur la ñu jox ko fii a usage commercial lañ ko war a def waaye lépp daf ko dafa dafa ne wàllam ci làmbaay kenn ëppale wu ko ci kon da ciy def cëram ci seex jële Abdou Fatah mi it kenn du ko ci ëppale da ko ciy def ba tax na amul ñu sens interdit fii nga xam ne moo di foire bi moo ngi koy santaat bu baax ci turuk sëriñ bi ci turu saadi xina waaye sëñ bi it mi ngi wax ne ne ko Macky Sall président de la république bàyyi xel bu baax a baax te bu lu mu ko mën a yokkal ci li nga xam ne moom la yor ndax jàmbaar la ci mu yokkal ko ko te xamal nag bu ko ko yokkalee lii muy wax année sociale di ko wax sociale bu muy jëf dana xam ne Cheikh Ndiaye mii ku ci mën la bu baax a baax a baax kon ñoo ngi koy santaat mu baax mu baax ci turu sëñ bi te di ko ñaana suñu borom jàppale ko doole koo jàppale ci barke Cheikh Mamadou Fadal borom bés bi waaye barke ki nga xam ne kii moom lañ ko tuddee muy maam Alioune Diouf sant nañ ko bu baax moom seen Cheikh waaye di sant it soxna Aïda Sougou di vice président conseil économique social et environnemental mu doon koo xam ne kii ba ñu tàmbalee ba léegi ñun ak moom ñooy ànd bés bi di ko dox maanaam di ci taxaw na mu ca war a taxawee doon koo xam ne kii ku ñuy gunge la saa su ne moom it ñoo ngi koy sant bu baax a baax honorable député maam Xari Mbàkke kookee moom mbir mi mbirum boppam la ndax saa yi ñu gëstoo gis ko ci lépp loo xamante ne ñoo ngi koy taxawal di ko organiser si ginnaaw Cheikh Jili Abdou Fatah ñoo ngi sant bu baax it ci turu fédération bi ak turu sëñ bi soxna Khady Diop Sow di ko sant bu wér te di ko ñaanal suñu boroom gën koo dëgëral sëñ Aline Barara Seck moom it ñu di ko sant bu baax a baax a baax ci taxawaay bi nga xam ne bi am na ko ci bés bi sëñ Antou sàmb mu Azer moom it ñoo ngi koy sant bu wér a wér moom yàgg nañu ak moom. saa su ne lu ñu yëngutu rek ma nga suñu wet nekk ca ànd ko ak ñun yàlla na suñu borom yokk ko te gën koo dëgëral sëñ Muntaxa Caam Murtada Caam bi nga xam ne bi moom la àndal it koy santaat bu baax a baax waaye xam nañu ne ne fii nga xam ne mbooloo mi dajane fi ak ni dëkk bi tëddoo lii ñuy wax wàllu sécurité ñoo ngi saluer di remercier bu baax liggéey bi nga xam ne bi moom la gendarmerie nationale liggéey nga xam ne seen liggéey ñu ko nam nammee am jaarale ko ci général bi suñu bàyyi boo xam ne bii si suñu biir la bokk ñu ànd ak liggéey bi boo ak moom boobu ba tey muy bàyyi Samba jaw moom lañu ñu diligenté la chose mu topp ko ni nga xamante ne noonu la ko toppee ba liggéey bi mucc ayib kon ñoo ngi remercier bu baax élément de gendarmerie yi nga xam ne ñoom lañ fi envoyé di sant bu baax it la presse bi nga xam ne bii teew nañ fi ndax li leen waroon ci communication en aval laata bés bi te gis nañu si suba ba léegi ni nga xamante ne noonu la bés bi taxawee ci wàlluk information ak wàllu prise en charge médiatique ñoo ngi koy jël ci na mu gën a rafetee ñuy ñaan yàlla bu ñu ko weesoo it ñu wéyal liggéey booba di sant bu baax sécurité bi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Pape Fall di nga xam ne ñoom it si suba ba léegi ñoo démb ba léegi ñoo fi taxaw di taxawu wàllu sécurité bi liggéey ci liggéey boo xam ne bi bu ànd ak professionnalisme la sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax gis na taxawaay bi gis na liggéey bi te di ñaan suñu borom mu gën leen a dëgëral gën leen a taxaw ci li nga xam ne moom ngeen yéene ba def ko ci. kon di santaat bu baax fédération saadixiina wa xaati di leen wax ne leen mbir mi nii la bu ñu rombee bés rek jëm ci bés ñoo ngi jëm incha allah lii di kazu rajab ñu waajal ko bu baax a baax laxasaayu waat te xam ne liggéeyal sëriñ bi rek mooy li nga xam ne moo ñuy jariñ liggéeyal sëriñ bi mooy li nga xamante ne mooy suñu mucc fii ak fa ñu jëm. ndax jamono tëroo na noo xamante ne boo amul cadre boo xam ne bii sell na nii suñu cadre bi nga xam ne moom lañ sëñ jëli fu defal cadre bu mel noonu boo ko amulee tab si lëndëm kon mbàkkee ñoo ngi lay ñaanal suñu borom yàggal la fi te wéral la yow mi nga xam ne yaa ñu defal loola ñu yàgg koo ànd ak yow nga dund ay ati at at lu yu baree bari yéene bi nga xam ne bi am nga ko si ñun yàlla na nga ci am lu weesu suñu suñu njort sa njort ñu nit liñ la yéene yàlla na ci am lu weesu suñu njort di sant kuréel yi nga xam ne ñoo taxaw woon comité de pilotage bi nga xam ne ñoo doon doxal comité d'organisation bi su yaakaar naa su ma ci tuddee jëwriñ Jibril fay yaakaar naa tudd naa ñëpp bu ma tuddee Ibrahima Diop coordonnateur tudd naa ñëpp bu ma tuddee Soxna Ndeye Fall tudd naa soxna yëpp kon di leen gërëmaat di leen sant tey jégalu ci kàddu yi guddi yi di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu saa su la di am yu am solo yi bàyyi fii ci Rafah ak Rafah TV ñëppay dañ agréer